YD comme chaque année bu jeexee hip hop Galsen Awards bu jeexee ngeen commencé waat sélectionné waat année bu nekk noonu artistes yi bëri ngeen récompensé leen euh, ren euh, ban satisfaction nga si am. Euh, bi mi bi ñu daan am rek c'est le hip hop qui gagne comme ni ma ko yàggee wax même su fekkee cette année a été la plus compliquée. man foogoon naa ne première édition bi moo gënoon métti mais ren moom wax dëgg yàlla li ñuy daj ren alhamdulilah. ah. waaw écoute euh, tu organises une cérémonie comme ça et puis zéro sponsor nga annoncé grand théâtre ba ñëpp bég ba pare nga indi ko biir 2STV mais vous avez vu ce qui s'est passé ça a été une très belle édition ñi fi ñëwoon seetaan nañ ko kontaan nañu te li ma leer ba leer tey mooy ñi ko seetaan télé tamit kontaan nañu donc alhamdulilah. lan moo nekkoon euh, problème majeur bi lan la sponsor yi. Oh, ñëpp xam nañu loolu xam nga pas de partenaire pas de sponsor à part la FDCU qui nous a beaucoup soutenu taxawuñu carrément parce que lépp li nga xamante ne euh, loolu la laajoon ci réalisation bi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ñu taxaw dëggantaan donc euh, merci à la direction des arts merci au fonds de développement des cultures urbaines di remercier FD FDCU tamit kii MCU. euh, qui ont mis leur studio à notre disposition donc euh, et surtout surtout surtout tous les artistes sénégalais et africains et les animateurs africains qui ont qui nous ont aidés à faire une bonne présélection bi nga xamante ne moo waral ngeen gis nominé yi ngeen gis tey ci guddi yëpp. mu mel ne euh, euh, fii ngeen ko defee comme 2STV comme ni nga waxoon Grand Théâtre la ko ñëpp doon xaar mais teewul artistes yi am na ñu bëri ñëw nañ waaw ma bon comme ni ngeen ko gisee rek xam nga événement xam nga c'est important tout le monde vient quand c'est pour soutenir tout le monde vient donc euh, loolu mooy li ëpp solo quoi li si des yëpp euh, amu solo mooy comme je dis tout toujours rek euh, l'essentiel est que les choses se fassent et on l'a réussi grâce à l'aide de Dieu donc incha allah bu ñu noppaloo peut-être d'ici quelques jours rek enchaîner avec la préparation de l'édition prochaine qui blindé dernièrement euh, est-ce que du loolu moo tax sponsor yi ñëw. non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir man di di am nañu artistes yoo xamante ne euh, euh, depuis 2017. la ñu téye seen bopp mais n'empêche 2018 euh, les sponsors étaient là 2019 les sponsors étaient ji ñu xam nañu situation Covid bi moo fi nekk et les les les compagnies sont presque euh, en en chute ñam na ñoo xam ne ñu ngi en faillite ça se comprend c'est c'est, c'est pas Sénégal kese ah mondial donc euh, ça se comprend surtout boo nekkee tamit fin d'année ñi nga xam ne dañuy nekk di revoir seen budget ça se comprend mais c'est juste bon pour une édition assez importante et pour la première Euh, je pense qu'on aurait pu avoir euh, ne serait que benn ñaar wala ñett sax ñi nga xamante ne ils son là parce que cérémonie boo xamante ne jaayuñu entrée jaayuñu dara donc euh, c'est entrée sur invitation bah écoute j'espère qu'ils sont là l'année prochaine incha allah. mais nan nga gisee avant événement bi artistes yi di génn bokkuma bokkuma est-ce que loolu xaw la déstabiliser. non man je suis jamais déstabilisé jamais déstabilisé jamais ku ma xam dëgg xam ne je suis jamais déstabilisé. Voilà, donc euh, les artistes sont là. On a commencé avec six catégories. Première édition, euh, en présélection, on n'avait même pas 10 artistes par catégorie. Aujourd'hui, on a plus de 15-20 artistes par catégorie à 12 catégories. <laughs> wax ma ndax artistes yi yokk nañu wala wàññeeku nañu Voilà, l'essentiel est que les choses se fassent. Donc, euh, on se concentre sur les artistes qui sont dans la compétition. Nous avons maintenant, le soir de la cérémonie, leurs noms sont sur l'écran. Lolo Yakanani Lol. Donc, euh, Kounyaou, Amgatiwal, Kounyaoul Tamit Amgatiwal, parce que tant que tu te dis hip-hopper, Gazan hip-hopper, Amgatiwal, man Lol Ladjap. daaw ngeen def cérémonie bu nice boo xam ne euh, vraiment ñëpp a ko apprécié mais le lendemain ñu gis lan loolu loolu ego trip la rek ci hip hop bi la bokk. ci hip hop bi la bokk. c'est que da ngay analyser fu mu tàmbalee ak fu mu mujjee rek tu auras ta réponse. sorti nga Kabla euh, écoute euh, pour être honnête je me sens très mal à l'aise de parler de lui euh, concernant Galsen Hip Hop parce que. Euh, c'est un artiste que je respecte mais bon on lui souhaite bon, bon bonne bonne chance et bonne continuation l'essentiel la cérémonie s'est bien passée non mais dañuy gis Dip daf ko daa sànni sax moom trophée am mais mais mais d'accord d'accord mais mais retiré wu na wane na ko pourquoi ngeen insister si Ngaaka Blindé te ñoom ñoo bokk benn. waaw bon écoute ñoom la rek. mën de pourquoi ngeen boole Ngaaka Blindé si euh, yow bu fekkee dañuy def ay nomination nga bokk ci critères yi correspondre ko ba pare génnee li tax nga war see bokk doo ci bokk. artiste bi nekk ñi nga ñi nga fi gis nii yëpp tey woowuñu ci kenn. ñëwu ci kenn. mu xëy sànni leen trophée. non ku sànni yaa xam ku sànni bon écoute. artiste de l'année et puis nanguwul trophée. Euh, écoute. waaw euh, mais tout le monde s'attend c'est-à-dire il faut comprendre une chose euh, artistes yi bëri nañ fi il y une nouvelle vague qui arrive. y en a qui sont là en ce moment te avant ñooñu am na ñeneen ñu fi nekkoon d'ici peu ñi dañu puus ñeneen ñëwaat c'est un cercle comme ni ko gars yi di waxee saay fa la day tourner rek tu vois day tourner rek day tourne rek une cérémonie est une cérémonie quand tu vas aux États-Unis wala en Europe tout li li fay xew moo gën a graaw fii li fay xew moo gën a graaw fii un artiste comme ba muy dellu si kenn forcé wu ko am na benn année boo xamante ne bi jël nañ benn trophée boo xam ne un artiste comme Kendrick Lamar moo ko mérité woon ñu jël ko jox ko Michael Moore Michael Moore est-ce que yaa ngi koy dégg tey Kendrick Lamar il est en train de faire le tour du monde c'est ça les awards. kon xaar nga ëllëg si biir ñoom ñu ñëw dellusiwaat. bien sûr bien sûr bien sûr du ay rappeurs lañu. bien sûr Galsen hip hop lañu wax Galsen hip hop lañu wax. alors après am na ay nouveauté gis nañu nomination yu bees ay catégorie yu bees yoo xam ne vraiment ñëpp apprécier euh, africain yëpp bokk ci ci ci compétition xam nga bokk ci ci ci ci Galsen Hip Hop. c'est l'évolution normale des choses. Voilà, nous la réguisser, c'est l'évolution normale des choses parce que quand tu commences avec 6, aujourd'hui tu en es à 12, d'embay ibil africain yi xam nga voisin yi pour ñom tamit ñu ñëw am ci wall. C'est l'évolution normale des choses. Légui nak euh, xam nga soufa juste euh, ce qu'il reste voilà, tenir un bon discours avec tous ces artistes là ñi nga xamantene xam nga euh, ñom la gaay bëgg gis tamit xam nga ñu bokk ak ñen ñu bokk plateau yi ak ñeneen ak seeni morom et voilà wax dès peut-être benn euh, discours de grand de de de de, de maturité. Mhm. et avoir un, un, un discours de dépassement par rapport à pas mal de choses parce que comme j'ai dit euh, nous respectons tout le monde hein, old school middle school new school et tout perso man xam naa ni en âme et conscience je n'ai rien contre qui que ce soit mhm. ñi ma xam dëgg xam nañ loolu ñi may fréquenter xam nañ loolu léegi nag bu fekkee dafa am noo xamante ne dafa jagari wala noo xamante ne dafa am lu muy déranger nit ñi ci man wala ci Galsen Hip Hop Awards pare naa pour waxtaan ak ñëpp sama équipe pare nañu pour waxtaan ak ñoom ñëpp benn par benn ñu xool nu mu gën a rafetee rek ñu defee ko noonu. li jaaxal ñëpp comme ni ma la wax début bi bu jeexee nii suba ngeen attaqué waat année prochaine euh, problème Akatsuki ci année bi lañu lañu am. Euh, bokk ñu séparé wu Mr Cash ñoom ñeent ñu des na ngeen def boole leen ci benn catégorie. non parce que ku ci nekk da ngay ñëw ku non ban problème man loolu yow loolu yow yaa ko xalaat man xalaatuma ko sax xalaatuma sax te problème dina am foofu noonu boole nañ leen ci ay sayfa boole leen sur le même plateau ñoom ñëpp ku ci nekk yéeg na fii te micro wax ak askan wi yaakaar naa ni dara dara nekku ci. c'est c'est hip hop man en fait il a quelque chose qui me dérange souvent mooy quand. Euh, des journalistes wala des personnes qui font des interviews ils voient entre guillemets toujours le mal partout ou quelque chose. on a vu quelque chose. Euh, oui mais bon votre vision n'a pas n'a rien à avec ñun notre vision man j'ai un point de vue hip-hop yow vous avez un point de vue journaliste sa mënuñu comprendre te ci certains points. même su ma la expliqué woon tamit moi je la tension ne m'intéresse pas l'essentiel est que les choses se fassent nay rafet c'est tout ce qui m'intéresse nay rafet alors ak 2 nga ko defee animateur bi def fii euh, émission hip hop lu tax ñëwul invité woon euh, ñun on est venu faire notre cérémonie c'est tout. <laughs> nekk moom fi représenté hip hop fii lu tax waaw kay dernière question. non question.